koy xool doo du leen jënd doo leen jàng sangara sangara sangara waaw bismillah jam, lu hmm? hmm, ah yow sa nelaw yi gën a sori la lan la. sama gént gi ñaaw na. loo gént. dama gént kay. réer réer réer réer réer. ay Sankara dalal la sa xel mii. sama xar yi. bàyyi sa xar yi. bàyyi naa ne. yow yaa ngi ñëw ne dama soxla ñu xaaral ma dallu tuuti jaare fanel sonn nga kay moo tax ma bàyyi la. damay faral nga toog di xool xale yi ba bët sa wóor. te wut gardien ngir yàlla yonent bi nga noppal sa yaram bii xale dañu wóor mënuñu garder dañuy dañuy jox xale yi lekk gu bon jox lekk ko dee balaa tabaski man xale yi bëgguma ñu dee du tabaski li sa tabaski laa bëgg. boo xefee yaay dee balaa tabaski. man dama bëgguma laa ñàkk. man ñun noppal sa yaram bi ba léegi décembre. su ma dee restaurant su laal leen mën a xel yi benn benn benn kàmm lay sa foofu am na leneen ma ñu waxtaanee ko si diggante seen trois lampe boobu bu fekkee da nga ci am loxo nga dindi ko. maanaam. li ma dal sama diggante ak Sëñ Tuubaa. lan moo la dal. waaw su ma ayee ci moom. Hmm. sama dara dafa sonné. waaw kay nag yow la jubóowul moog seen oom benn lañu dañuy déggoo yow la jubóowul ku da jarul loolu. <laughs> yàlla moo yor wërsëg ku nekk da nga war a lekk rek ngay lekk. eh waay ndaw Samba. waaw bu fekkee yaa ko def. njëkko jàmm. eh Sankara tey. man Sine 3 yegguma fii yow xam nga loo sax waaye léegi daa man may ñaaw yaay fan nga bàyyi ba lu ci kër gi rek ñu ne man la. bu ko gisee noonu. noonu laa koy gisee. ah. yow boo ayee ci man fonctionné ci man doo ngay ayee fonctionné laa lay laaj. déedéet loolu tam waxu la ko su ma ayee ci yow damay fonctionné su ma ayee ci Sine 1 damay fonctionné waaye su ma ayee ci Sine 3 rek fonctionné pas. waaye man foo nga ne bu doon damaa bon ba bon yaa ngi dégg balay xañ sa ñetteel bi est-ce que duma la sa aaw tamit bu ma demoon ba koy def ñoom ñaar ñëpp lay boole. mais fee wax naan si nga booy dawal mbege sax fexeel bay jël pay mbala booy saw bu ma doon saw boo ñëwee sama buntu néeg bële ca paccax du ma demee bay def dama koy matal ba mu mat sëkk waaw kay. kon daal yow man yaa ma ñor ñii ñoruñu ma de. ah. Oh, waaye yow tamit nag su ma demoon bay liggéey sa ñetteel bare na moo te sax man dama ko nopp nag. dëgg dëgg. yow mii ku ne am na da nga nopp. ma jaaxal yow téye bel. Hmm. téye téye sant. ay eh, doon de la manière. ay eh, doon kenn day yor ci ma. gis nga ba tax na. kon damaa seen tooy bu bees tàkk. pour dara ma. laa ilaaha illallaah fan yii yëpp moom laay ma ci. danga naan ma jég bi ren looy jaay. ci répétition bu mag laa ne. lan. laa bu ma ñëwaatee fee ay fee doy toj ak sabari. bees. laa kele bu bees tàkk la ma mbaaco jàngal. lan mbaaco. yii mbaaco law ba jàngal na ma bu bees tàkk. sa waayam. sama xarit la. ñamal ma ci keneen ñamal ma ci keneen. ma ah, ñamal ma jég bi yow looy jaay. pour lay jàpp waaw. jég bi ren yow looy jaay. jéeg bi yow looy jaay. <laughs> xar da lay jaay. jéeg bali bali da lay jaay. jéeg bi eh, bali bali lay jaay. <laughs> jéeg bi <laughs> am na bu mag am na bu ndaw ak bu day ni man eh, jéeg bi yow looy jaay eh, jéeg bi yow. pato yalla ba ñent jundi sok am ko dak ñent jundi ci répétition ni li nak bokay def yalla na fik ñup yow yalla man do sama ñi dama ci mëna teud fi di la science ah bëgg dua doomam ya, animal yaay joob ak ah, amadou ba xam nga damaa jàppale. Seydou Maas. ma sutura. taxawuma. di ma woo téléphone. di ma vocal di ma nemmeeku. xam na ne man gorom laa am teg bëgg taxaw na ci. jàmm rek laa ko ñaan. moo tax nag ma bëgg tënkee gële ren. Mm-hmm. koo mm-hmm. mm-hmm. bëgg daal nag. mbay ma jaaga may sa doom nga jox ma rek. ma dem terale ko ko sagale ma ko te ngay géem a dëkk HLM lu xew ba jàmm sama sama a gaaw gaaw naa wàcc yow koo nekkal est waxuma la ma wàcc yow sama xar mu yox sama baal baal mi ma yar sama baal baal bi ma xont sama baal baal bi ma teg sama wet sama wéttal sama xarit ki ma la gënal moo ma la gënal gënal ma sin un gënal ma sin trois ay eh waaye ndaw sam yow gënal ma sa yaay nga nekk tënk sama xarit nga sa yaay ah, du sa góor fin nga ah laa ma nga wet gu ne laa ma nga wet gu nga ñëw sama sama baal baal <laughs> wan taw mel ni bala lënd nii kalau bu ma waxaatee nga tontu parce que dama lay yëy te ma lay lekk doo yow sa yaay sama yaay bëgg a bu bëgg sa sama baale baale nga koy sagale. yow yow loo saf. safoo dara safoo tus. safoo xar mee tax nga lay xar xar la gën saf. xam nga sa bopp mu naan safoo safoo munoo laal munoo digg laal munoo boore laal munoo dara. safoo man jom sama yaay sagal sagal dara. dara gën doon fini. fi pour nga am si valeur nekkal xar. man kay utal buum. ma lay sàmm man la utal buum. naan utal buum yeewu ma. ma yaay mañ mañ mañ mañ mañ mañ mañ mañ asalab tëngeej dama ko bëgg a sax sama xale gi sax aster. sànnay du sànn. waaw yow xale yi daal kenn du leen tëgg. damay xam xam kaa war naa fi paaka sax tutaatal xar waxatal xar xar xar xar. du ma waxaat ne xam naa ne Sénégal daa bëri seytaane. ku ma butti laay ba ñu ma fekk ci réseau yi. yaay sa seytaane boobu kenn du ma rey. sa yaay boo ko bëggee sagal sama xarit nga koy sagal. waaw sa yaay la sa yaay dama ko fa ñaawaayam sa yaay dafa ñaaw dafa golo la du ma golo du ma golo golo ok yaay golo bu mag bi jël ko yu guddam yu vertam mu mel ni ku nawetam nangu man kii ni may def mu mel ni singom bi taaweeku nii yow daal sankara daal boo ko wax bu xam daal ak nooy yem gi ndax xar rek ay yow sankara mi tubaay bi war nañ di ko xeex